mu jëm galaa baya duniya danaa ko war balaa maa war. ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye ci ndigalu mbokk yi Serigne Cheikh Jëmm Fall ak Serigne Bassirou Mbacké Porokhane soxna a Diop mu ndaw ca Pikine Nord mooy amal mbokk yi sant Serigne Touba bu mag kañ lay doon ñu ni samedi 19 juin 2021 ca Pikine tali bu mag boo ñëwee ba tali karo bi dendoog jàkkay Omar Sy programme bi nu muy demee ñu ni mbokk yi bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraanul karim waaye ñu fàttali ko way dawlu yi ñaanal leen sunu borom yërëm leen dinañ def ay berne berne yu am solo bu ñu julee tàkkusaan mbokk yi bu 18 jotee ñu tàmbali mise en place ba kan moo koy jàng mbokk yi ñu ni jàmbaaru Serigne Touba ba jàngkatu xasaayit bu mag ba ñépp naw ko ndax pastéefam kooku mooy Serigne Akassa Samb waaye mbokk yi kan mooy amal waxtaan ba ñu ni Serigne Saliou Seck alxuraan waxtaankat bu mag ba saa bu waxee si Serigne Touba rek ñëpp ni gongo mbokk yi événement bu mag bi soxna Awa Diop ne mi ngi ciy woo képp kuy mbokk xarit am na jàmm dëkkandoo bàyyiwul kenn di siwoo Baara Gaye maire bu Yëmbal Sud Abdoulaye Diop maire bu Ginnaaw Rail Sud Marème Diallo femme d'affaires Cheikh Dieng maire ji de Thiaroye Kaw madame Mamou Ndaw madame Marie Sow Ndiaye ak Woré Sarr honorable député ci assemblée nationale ah mbokk di siwoo Serigne Dame Diouf Lambaye Lambaye kooku mooy kilifa bu mag ba bari diine lool ñëpp naw ko waaye di kenn ci soxna Awa Diop mbokk yi subas ba dinañ delloo njukkal mbokk yi soxna Awa Diop ne bés bi da koy darajaale maître Abdoulaye Wade une personnalité emblématique un homme pétri de toutes les valeurs de civilité et de socialisation mu ne lépp lu mu am rek daf koy gërëmee maître Abdoulaye Wade ndax lu mu liggéey Sénégal di ko ñaanal gudd fan lool ba Sénégal di mun jëriñoo xalaatam événement baa ngoog mbokk yi sant Serigne Touba ca pikintali bu mag dendoog jàkkaay Omar si soxna Awa Diop moo woote ca Jomba ca fulla ga ca taalibe ga ak bëgg Serigne Touba ba yemalewu ko kenn événement baa mbokk yi ñu siwoo képp kuy jàngkat di si woo waxtaankat yi waaye waa Pikine ak li ko wër ñëpp soxna Awa Diop mi ngi leen ci woo nu ñëpp àndandoo gunge soxna Awa Diop ci sant Serigne Touba. ànd ak Serigne Touba ànd ak Serigne Touba te tàggoog Moussa.